yal nañu ko yàgg ñëw di ko ñaanal di daje fii di ko ñaanal ci kanamu rakam yu baax ji toog ñun li boole ak Pape Dia dafa bari moom moo tax ñu ànd def suñu délégation délégation bi nag suñu président association des managers bi nga xam ne Pape ja daf ci bokkoon moom moo ko jiite di Abdou Babou mi ngi nii toog ànd ak Max Mbergane bokk ci bureau bi ànd ak ki nga xamante ni mooy suñu trésorier général di Abdoulaye Ndiaye ñu nii toog ànd ak suñu jigéen di Catalina bu Tampico ñu ànd ak moom ñëw ñu ngi nii toog di nuyu famille lamb yëpp tey jii boo gisee presse kenn desul mbër yi kenn desul comme ni ko wax su amee rek xamal ne lamb famille moo tax ñu ñëw pour si ñaan bi ñaanal ko yàlla bokk ak yéen naqar parce que association ku dem ba ni daf ma neex bind ñu boole la ci nga ay cër di ci doxal ñooñu yaa ñoom yéen a bokk famille moo tax Pape Diedal dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana njabootam gi fi bàyyi ak rakkam ji yàlla may leen wér ñu yàgg di ko ñaanal Pape Diedal ni ku baax la ndax dama wax ni ñaar dañ koy jàppe jullit soo ko gisee mu ñime njaboot fonk diineem da nga ko war a ñee te Pape Dia gis xam ni ku bëgg njaboot la ci rakam la ko amul làmb booy dem te gisuloo Pape ci wetu Bombardier ba France maa ngi Maxime Bergan mi ànd ak moom mi Pape ci wetam dar ko ci fair play ci discipline ci yar ànd ak moom bari na mbër yu bëre yoo xamante ni xamoo seeni mag waaye Bombardier moom ñëpp a xam magam loolu nag su amee rek xamal ni ca yaru mag ña la ak diine ji ñu def ci ñoom Bombardier c'est le monument de la lutte sénégalaise mooy roi des arènes boo xamante ni ba mu dalee bëre ba léegi kenn musul dégg Bombardier moo wax ci rajo bii lu ñaaw walla wala Bombardier moo yàq làmb ja wala Bombardier moo xaste wala Bombardier moo wax dara ñun ñii ñëpp yor nañ yeneen i mbër mais dafa am ak ñun relation yoo xamante ni suy bëreeg suñuy mbër sax dañuy am kersa ci jàkkaarloo moom ñuy xoolante dañuy wootanteeg moom di waxtaan ak moom di liggéey ci leneen du làmb ku mel noonu nag su fekkee lu mel nii dal na ci kawam dal ci famille làmb ñun ñëpp dañ koy jaale jaale ko suñu bopp jaale ko mbuur jaale ko Sénégal yal na ko yàlla xare àjjana képp ku fi nekk na ko ñaanal yàlla xare ko àjjana ndax loolu rek la dese euh, di wax nag ni association bi ñoom ñoo waroon a dëj sax Pape Jami tey ndax fi ñun la bokk waaye Euh, dañuy def suñu barkeelu ci li nga xamante ni moom moo ñu boole ak moom tey président Babou Maxime Bergane Abdoulahat Ndiaye ñi ngi nii bu ngeen jógee dem ci Bombardier jox ko li nga xamante ni euh, dañ koy barkeelu ci kaamil bi wax ni daal naqar bi ñu ngi koy bokk ak yéen di ñaan yàlla xare ko àjjana euh, man nag dama doon koo xam ni si ñoom fu ñu yegg rek ñu ne ma jëlal kàddu gi nga wax kon daal am ñoom amoon nañu yéene wax sax lu ëpp li may wax waaye ci sama matadi moo tax ma waxe nii lépp lu ci dëng rek na ngeen ma ko jéggal lu ngeen ci dégg xam leen ne amoon naa yéene wax lu ëpp loolu kon nag ma jox Max Mbergane ku ko xam xam ni moom ci ki jàpp champion mi indi ko Ndakaaru ci la bokk tey bu bàyyi yéeru jaxate doon dund suñu fi toogee danaan Max Mbergane jëla kàddu bi nga wax ci Bombardier ndax ku mën a témoigner ci moom la Max ma jox la waaw jërëjëf ba kàddu yi am na solo di nuyu ñu fi teew ñëpp parce que mënuma ñëw ci kër gi ñuy wax ci Pape Dia génn àdduna ma noppi dama xam ci lu bëri du ma ci wax lu bëri nag mais damay wax lu tuuti ndax wax nañ ci baaxam wax ci bëgg jàmmam li ko andi ci bombardier coow moo amoon mu ñëw taxaw ne du ma topp bi rek naa jege sama rakk gunge ko mais bi mu ñëwee yàqul benn yoon day fekk lu yàqu mu defar ko dañoo wax ci bëgg jàmmam wax ci baaxam man na damay wax ci julliteem ndax man maa ko fekkee saa ma masa fanaan ci kër gi bu ñu noddee fajar soo déggee bunt bi ubbeeku rek Pape mooy génn man dama daan julli ci kër gi fajar benn mu fel bunt bi ma topp ko ba ci jàkk ji muy jullee dafa geesu gis ma ci ginnaawam kon moom jullite maa ko mën a wax ndax man maa ko fekkee kuy baax nag ba dajeeg suñu borom da ngay xam ne suñu borom la gën fuuf yàlla na ko yàlla xare aljanna ku baax la woon yàlla na dee di noflaayam Bombardier nag rakk ju mat rakk la ndax taxawu na magam ba yàlla ñëw dogalam waaye daal loo ci mënti dégg àdduna moo tëddee noonu ndax yàlla du bind ci fukk rey ci juróom benn ku matal dem yal na ko yàlla xaraan jànn yal na dee di noflaayam euh, loolu laa ci mën a wax mënuma ko weesu mais Pape Dia daal ku baax la woon Bombardier rek ñàkkul ñëpp a ñàkk ndax jàmm na séqoon ak ñëpp am na loo xam ne benn benn la ko yàlla may mooy mer de sa xel jagle tax suñu borom defaloon na ko Pape Dia doo xam lu ko neex doo xam lu ko naqari ku mu gis dina la ree nuyu la taf la ci kaw loolu nag ci mandarga ngay nit ku baax la yal na ko yàlla xaale xale aljanna jërë ngeen jëf